Hey, hey, hey.

jàmbar la wane na jom wax naa ko bi ñu bi ma dikkee li nga def ak li nga li nga ma wax yëkkati xaalis bu bari jox ma ni ma demal taxawu bugaan ba ñu bàyyi ko ba nuppi ndax xam naa sa diggan moom tey xam nañ man la nekk waaye bugaan fu mu ne maa ko nekk ma jël si Samba jël hôtel ñaari fan la ma jëlee yaa ma ko jox bi mu génnee dem bi wax naa ko jaram ne waaw waaw loolu na leer

kon ñoo ko gisandoo muy euh, président Bougane Gueye mouvement Gëm sa ak ki nga xamanteni moy mooy président nouvelle responsabilité di tête de liste euh, coalition Jàmm ak Bougane Gueye bok ci coalition Sàmm sa Kàddu ñoo dajé fofu ci Tamba joxante loxo dal mu wone dal ben soutien d'unité je crois que li la ñu gën soxla suñu responsable politique baña nono ñu bok dal lepp lo xamanteni manam moy luy tabax Sénégal donte seen gis-gis ak seen façon bokul muy ben dynamique unitaire bo xamanteni opposition politique bi amul ben contestation dal dina ñuy consolider jëmale ko dal ci emprisonnement bi nga xamanteni ginnaw ginnaaw libération kii di Bougane Gueye Dany muy leader mouvement gam Sa ñu élargir ko de prison le 30 octobre 2024 mu don ci ay géol yo xamanteni fofu ci ca ginnaw nak bu mu recevoir démbu alxamis 31 octobre 2024 ki di Amadou Ba di tête de liste jàmm ak njëriñ doon na dal li nga xamanteni dal ben présence la ci kanamu ki di Barthélémy Dias di tête de liste coalition Sàmm Sa kaddu ginnaw dal lepp lo xamanteni wax nañ ko ki di Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum Pape Djibril Fall ak seen ay militants je crois que sénégalais yi le la soxla mën ngeen baña a bokk gis-gis baña là xalaat mais ngeen bokk ben vision muy Sénégal jëm ci kanam té lenn ma koy maylé moy jamm stabilité bañ yëkëté ay accusation di indi ay mbir yoo xamante ne daal day féewaloo kii di ancien premier ministre ginnaaw nag bu mu témoigné li nga xamante ni mooy soutien am encouragement am jëmale ko daal ci ki nga xamante ne rakkam la di Bougane Gueye Dany ginnaaw bu mu jàkkaarloog li nga xamante ne mooy benn puissance publique jëmale ko daal ci touru démocratie ak liberté moom Amadou Ba depuis arrestation Bougane Gueye Dany bi amul benn yoon boo xamante ne ménagé na benn effort jëmale ko daal pour permettre li nga xamante ne daal mooy rakkam bi nga xamante ne dañ ko tëjoon injustement ginnaaw nag bu mu sentiré benn élan de solidarité ki nga xamante ni moo transcendé lépp loo xamante ni mooy chapelle politique en tout cas muy mooy image yoo xamante ni ak vidéo boo xamante ni lii la ñu soxla ci politique gu Sénégal